asalaamaaleykum sama jullit julliti man la mu sama sama mbay soppe rasulillah dama leen di jéggulu ci lii ngeen gis ci internet bi xam nit ku nekk nag la nga bëgg lañu naxe waaye maa ngi leen tuubal leen jéggulu ndax sallallahu alayhi wasallam amul photo waaye naxe nañu ci lu nekk même ba màkk dañ maam naa daan naa dañ maam nax bu bëgg xam sama cër ci yoon sallallahu alayhi ak bëgg ko ñu may naxe photo bi waaye salaa salaam amul foto waaye nit ku jum rek amul sama xet rek moom mooy yóbbu woon ci lool rek waaye maa ngi koy jéggulu umma bi yëpp maa ngi tuub tey jéggulu ngeen baal max jërëjëf